jërë ngeen jëf ci ànd beeg FTN Média ni ko Ousmane ko waxee woon noonu la amee am nañu bokkoon ci nguurug Macky Sall gi tey mënuñoo génn réew mi ndax dañ leen ko aaye Lat Diop ca la bokk tey ci suba lañu ko tegee loxo ca aéroport international Blaise Diagne bu jas aimé leen vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot bu ngeen abonné gu lit def leen ka ngir dara dootu leen xëcc ministre des sports ba woon ci gouvernement Macky Sall bu mujj bi Lat dafa xëy tey dem aéroport international Blaise Diagne bu Diass doon tukki waroon a jël vol Air bi doon départ boori 7 heures du moom njiital LONASE ga woon nag jamono ja muy defi formalité am la takk yi ñëw xamal ko ne mënta génn réew mi mu ne lan moo xew ndax amul benn interdiction de sortie du territoire bu nu ko def maanaam aaye ko génn réew mi ci lu mu yëg takk yi ne ko waa dëgg la waaye yow topp nu rek ba mu yeggee fa ko jëmee te la ñu ko xamal ne mënta génn réew mi ndax fan yële génnoon na Sénégal te waxul ana fan la jaar bi muy ñibbisi Lat Diop ni leen ca aéroport booba la jaar te am na ci firnde ndax passeport am def nañu ci sax ab cachet gannaaw ba takk deri gëstoo loola nag ci la ñu gis ne wax na dëgg caché nañu loola di euh, passeport am wante nag ñu ne ko teewul mënoo tukki ndax dañu la ko aaye ministre des sports ba woon ci la daal di wàññeeku ñibbi këram kon laat Diop mooy ki ñu njëkk a teree génn réew mi ci nguurub président Bassirou Diomaye Faye gi loola méngoog li premier ministre Ousmane Sonko waxoon fan yële di dànkaafu ne traque bi biens ak acquis maanaam rëbb ñi ñu jàpp ne danoo sàcc alalu réew mi danañu ko door yàgg dara firnde gi mu ne woon mooy ayubés yi ñu dëkkmal am na ñoo xam ne dootuñu mënati génn réew mi